Sénégal parce que de boo dégloo ci biir audio yi mi ngi naan aw baaba dafa bëri ay plaignant te kenn mosu koo téye mhm. mais loolu moom waru koo wax parce que fii yoon Sénégal dafa am yoon fii moom koo fi ku la fi ameel boo ko yóbboo ci yoon incha allah dina fay kon moom lu mën a xew dañ koo ameel nee na dañ koo ameel dafa war a yem rek ci fayeeku bor mais warul dugg ci vie jàmbur bay saagawaale justice Sénégal parce que moom boo ko dégloo justice Sénégal la saaga te moom yoon war na ko cee mais bien sûr yoon war na ko ci topp parce que yoon ay kilifa ñoo fi nekk kilifa yooyu ngay toog tey jii di wax wax ju mel noonu kilifa yi war ñooñu war na la topp. Mhm. nan waxante dëgg. en tout cas daal euh, moom Awa oh, Baba fois ay xaalis or ci lañ koy dégg. Euh, chaque ci lañ koy dégg ci li ngay liggéey ci ngay amee problème la comprendre nga. Mhm. donc nit moom ci li ngay liggéey ci loolu ngay amee problème loolu rek la. Macky Sall la ngi ni amee na fu ne bor ci turu Sénégal noonu la moom ak société la yor société moom mënut a ñàkk chaque jour ay ak yooyu. en tout cas ci ñi xam société. Uh-huh. alors Ngoné mi bàyyi la nga joxe sa jàngat. waaw man moom mooy àtte uh-huh. bor fay. dëgg fa neex yaa waaw. man lan laa loolu laay loolu laay njëkk wax li may njëkk wax rek mooy àtte bor uh-huh. ndax tey nit ki lépp lépp lépp luy mën a xew daal ci suuf mooy bor nga ko amel rek kon ku am bu mais lépp ay nit comme ni ñu ko waxee nga jël dëkk sa sa immeuble cinquième waaw non euh, loolu waxu waaji la non xaaral loolu waxu waaji la waa dégg ñun waxu waaji la moom ak lu mu ci xew rek moo leb mais mais sëñ Bada waxu waaji moom la ñuy wax xam nga tey dégguñu version yàq der ak ñaaw lam aussi lii parce que nit booy wax da nga koy waxal loo ko xamal ak loo fekk ak loo gis. mais awa baaba kenn déggul version awa baaba Thiam version bi ñu dégg ñun ci la ñuy def li nga xam ne mooy suñu analise mm-hmm. bu dee yaay yaay avocat de défense awa baaba. solo sa rob du ma du ma du ma du ma du ma non non man du ma défendre. <laughs> waaw solo rek dama nekk nit koo xam ne nii damay analyser benn boor bi nga dégg da nga analyser. parce que benn analyse nga wax ñu tamit xam nga moom ci boor bi mu dégg. non ñaari boor yëpp laa ah, yi nga dégg man nag benn boor bi ma dégg man ci laay def sama analyse. demal man benn boor bi ma dégg man moom laa def sama analyse analyse bi ma def mooy àtte bor fay mhm. parce que tey mënuloo luy mënta xew wala ak lu ci mënta def dem na ci presse dem na ci média yi di wax lépp bor la bor moom boo ko yore nit ki da ngay fay wala ngeen xool ni ngeen koy négocier mhm. ba trouver li nga xam ne mooy terrain d'entente ngeen rek la ko mais nit ki tamit mënuloo ko yoral mu nekk entreprise yor otoom yor ay yëpp jël ko comme ni mu ko waxee dawal ba mu neex la def li ngay def ba mu neex la. nga daal bu fekkee yow da nga ñëw nopp nit ki imposé ko jël sa oto jox ko jël say bagage jox ko. def ci biir la nga bëgg amatoo ko tamit ngay xëy di yàq der wala di porte plainte loolu aussi. jot a seetaan am na si ah. non ci ni ma déggee wax ji man ci ni ma déggee mais man su ma analysé mais déglul wax xanaa yéen déglu loolu coow li mais sëñ Maodo sëñ Bada ak lu mënti xew rek li mu moo la fa bàyyi woon quoi wax ju neex ji moo taxoon ngay jël sa moom moom tamit awa baaba wax ju neex ji moo taxoon fayut xaalis bi ah waaw voilà moom kon tamit kon bu leen farantu daf dëkk sax wala muy jëkkër ak jabar gis nga bor bor la bor amul yaay ah. amul doom ah jëkkër ak jabar jëkkër ak jabar amul fay de ah, tribunal jabar bu la amalee boo ko yóbboo du la. ma ne waaye jëkkër jabar ma dama ne bor daal ah, bor la muy jëkkër di jabar lépp da ngaa war a fay kon ñoom ñaar lu ñu mënta toll awa baaba nay maytu yu bëri yii mm. chaque jour nit génn tey problème or gannaaw suba problème lële gannaaw mm-hmm. moom nit ko la koo xam ne tey ji dafa bokk fu baax baayam di baaba caam doomam tamit di sëy ci famille boo xam ne mm-hmm. ñëpp dañ ko xam mu xewal ko xew bu rëy te gis ngeen détails yoo xam ne ci jur moom moo war a toog foo xam ne dafay xoolaat boppam maytu ay joow mhm. maytu ay détails yoo xam ne toujours dafay jëm ci internet baaxul ci image am. Mhm. baaxul ci image doomam. parce que chaque jour ay bor nga gis lebal naa ko. jox naa ko oor fii problème fii. man na defaat di nga xam ne moom mooy moom mooy jikkoom mu defaraat di nga xam ne moom mooy toogaay. Mhm. ndax nit ki fooy mënta toll ci àdduna moo ko daal réew mi ñëpp koo mënta yoreel ci àdduna même bu la saagaa bu la xaseeg lu mu lay mënta waxal daal atte bor fay la. kon nag yoral nga nit ki. yoral nga ko xaalisam fay ko fay ko xaalisam moo gën parce que détails yii yëpp sax ju da koo jarul wax jeg werante bi da koo jarul da ngay gis fii sax nit fii ci Sénégal nit ñi dañ koy faral di def da ngay mm. luyee nit wala nga yoral nit ki dara bu tax da lay yoral ba pare yóbbu la ci yoon jaay la yoon dem fay sax ay nit indi la ay problème nga dem ñu defal la arrestation bu saf sap mm-hmm. boo xam ne dinga nga fa def boo maytul 24 heures boo xam ne di nga xalaat ñu bàyyi la wala wala wala nga xalaat ñu defeera la mm. dafa nekk loo xam ne dafa rafetul nañuy bàyyi di leb wala di ko teg ci woyu nañu bàyyi nit ñi di leb di ko teg ci trian nañu bàyyi ci leb di ko teg ci yeneen dafa am yéen yoo xam dafa dafa rafetul mhm. jikko sénégale la nit daal loo koy mënta yoreel boo ko fayoon xaalisam wala nga toog négocier ak moom doo dégg dara mhm. man awa baab man loolu laa koy conseil parce que nekk na nit koo xam ne macha allah ci discrétion am doo ko dégg muy tontonte doo ko dégg muy wax di tontonte walla di def ay yëf mhm. doonte bu dee dëgg la daal mbir mi bu ni waa expliqué parce que version am la ñu dégg dégguñu bu awa baaba caam kon bu dee li ñu ko waxal ni dëgg la. na mm-hmm. na na fay bu joxe xaalisu jaam bu dee du dëgg tamit nay génn di leeral parce que boo nee tekk di tekk à chaque fois ñuy jël dara di ko teg sa kaw ku ne mel na man. nee na keneen bu gàttee xel mën na ne li ñu lay waxal yépp dëgg la. Mm-hmm. te yow da ngaa nekk ci réew macha allah sa papa di baaba caam marqué fay empreinte am ñëpp xam ko nga amaat sa doom muy sëy ci famille bu bu célèbre di ci dugal koo xam ne effectivement li ba wax doomam yoonam nekku ci. Mm-hmm. mais takk mburu tudd dë tudd dëkk munoo wax ci réew mi aw baaba jaam te doo wax doomam Khadija mhm. parce fa mu sëy la jabaru Aline Seck mi nga xam ne mooy rakk Waly Seck di doomu di doomu papa coon ak ak ak suñu yaay jaaga moom jóge fi bërki dee boo njaay du dëgg yàlla ko yàlla yërëm yéexee ñu dafa am leen loo xam ne dafa rafetul nit ku ci daal boo célébré àdduna yëpp xam na war nga mën a xool li ngay wax mm-hmm. mën nga xool fi ngay teg sa tànk ak wala li ngay dem mais coow Awa Baba Thiam ci réseau social yi dafay benn te lay nekk coow yoo xam ne boo ko déggee da naan dëgg la wala du dëgg rafetul na xoolaat boppam xoolaat comportement bu baax mm-hmm. ndax bu dul dara mu sédd ci Khadija doom xam nga boo dégloo Awa Baba déglu ko fii ñun jox ñu ñu fay leen seen prestation mu jeex dëgg la donc après ça je crois ci dama diaspora mu sowoo waaw dugg ci faale wu ma ko wuyu ma ko mu ne ma loolu la ma ne ko non man ma fay ku gisul ak ku saaga sama société moo woote parce que dañu am commande yu ñu doon yóbbu. ñu pare laajte facture. waaw ñu bañ ñu jox facture dañu saaga boobu ba tey. donc boobu ba léegi mu nekk ci naan ma noo joxal booy bi dara ma ne ko du jox booy bi. parce que tam li ma dund ma li may dund maa ko xam. maa ko xam dëgg la mënatu ma nekk ci dëkk. depuis moom ñu mayee samay doom ku jot saaga. ku jot sosal ku jot fenal. et tout mënu ma continuer di dundee noonu. dëgg la booy bi daf ñu liggéeyal. dëgg la suñu sama entreprise ko woo sant ko. waaw na ma jox facture. waaw mënu ma parce que man la awa baaba. kon da nga am kon da nga am entreprise kon da nga am entreprise da nga am entreprise ah du nekkutoon de sa coobare la. agence communication non non. sama entreprise ñoo ko. ok dëgg la bi ñu wootee ci fixe. dégg nga donc donc lii bi ma bi ma wooyee aw Baba Thiam la. pour yow miy wax leeral. waaw kon moom tamit dégg nga lim leeral agence de communication. Mm-hmm. moom la yor kon mbirum société la ak mbirum société. loolu koy dafa leer léegi nag awa baaba li mu wax fii tamit ci audio bi leer na mm. bi mu mayee ay doomam ba léegi gars yi dañ ko commencé attaqué dafa mel ni gars yi ñu ko jàmm parce que boo fekkee da nga ànd yàgg ànd ak say nawle ànd fee say moroom yaa may dégg tey jii nga ñu am ay doom nga nga am ñu am ay doom ñoom it nga ñoom it ñu am ay doom say doom nga jël leen may leen ñu sëyi ci famille bu baax mhm. ah mën naa dugg ba ñuy defante yu ne parce que xam nga mbirum jigéen ak mbirum jigéen bu yàggu dara am na coow lu fi jugoon mhm. ah lu nekk ñu tuumaal ko aw baaba ba léegi aw baaba génnul di communiquer te tey ji bu ko neexoon génn communiquer leeral en nee nga nee nga yóbbu na mbir mi ci yoon nañ leen bàyyi ak yoon ñoom dinañ tranché ngoone sëñ euh, mbay de nee na maaraañaas nga ko yéen a dee mbay <laughs> waaw maa ngi gis ci daa bi mu ko def macha allah ah mbay mbay yi di génn. mbay li mu wax rek naan Mara da koo da koo yéene dee wala dara loolu moom. maaraa xam ne réew mi ñëpp ak tiktokeur yeeg ñoom jaar ñoom mbay gi ñëpp dañoo ragal dee da koy def ki nga xam ne mooy njaay njaay le roi day jékki-jékki message ko wala woo ko ne ko nii léegi nga dee te ku ne xam ne ne mbay Mara Niass <laughs> moom visionnaire la. <coughs> seetkat boo xam ne la du seetu seetu làmbaatu ak niiraatu moom lu mu wax ci nit da koy da koy gis. te mbay gis ngeen chocam bii waxoon na ko nee na ko di nga def choc ak yooyu te gis nga tànkam bi tamit xaw naa yàgg te lool bu ko waxee ay tooñ la ak ruubee te ku xam ne maaraa soo ko nee danga seet mu naa la bu ma seetal ndax day bañ mu ne la gis naa ci yow dee wala dara loolu ay ruubee rek ndax mbay ku ne xam na ne daa ragal dee te feebar bi dafa yàgg te mi ngi tëdd ak yooyu tànkam bi da ko nekk lu ko jaaxal te maaraa moom koo xam ne na seetu Mara moom lu ne lay gis mën na cee gis dee maaraa bu ko nee ay di nga deeg yooyu da koy tooj di ko ruube rek ndax maanaam noonu la demee ruube ruubekat la tiital na ko de ñu bàyyi la nga tàggatoo <laughs> waaw waaw waaw su ko defee rek ñu def ko tàggoo tàggoo bu dul tàggoo macha allah ñu gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñooñ doon seytaan di ñu di di ñu bàyyi xel ci saa su nekk mm-hmm. macha allah ñu ci mel ne tey ñoom Penda Coon Ami Njaay Jaata borom Colorado ñu ngi koy nuyu mm-hmm. di la bëggee suñu yaay aw mbuub ñoom ñëpp ñoom waa groupe Feeling Dakar bi ñëpp ñoom Ndoura Seen macha allah Leena Fall ñu ngi lay nuyu di la bëggee bu baax a baax ak ki nga xam ne mooy Clarisse Diatta ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee Fama Kassé borom Gambia ñoom ñëpp mm. ak suñu mbokk Gambien ah ndax mm. Gambien yi moom macha allah dañoo nekk ay nit ñu baax ñoo xam ne dañoo bëgg sénégalais mm-hmm. kon nag suñu mbokk Gambien ñu nekk Angleterre États-Unis ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen sagal bu baax di leen sago macha allah def ko tàggoo bu dul tàggu réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm amiin jërëjëf sëñ Bada ñu bàyyi nga tàggu waaw di di di di nuyu ñëpp rek comme ni nga ko waxee di sant ñëpp di sant yàlla di sant ak mboolem jàmm yàlla yi rek di wax ne tamit euh, Mara Niass boobu ak mbay aussi. xam nga euh, sëñ Mara euh, comme ni ko soxna si waxee nit la koo xamante ni yàlla may na ko da ko may ci mbirum seet. Mm-hmm. parce que loolu yàlla day maye ndax. ndongo sëñ Saliou la. te xam mm-hmm. nga ki yaroo xel kom ak ki yaroowul xel kom duñ benn. te Serigne Mara maanaam man mi waxoon na ma fi ne. ban ma defee lii mun ne ma sa kaso taxaw na effectivement. ba ma koy wax man ak Boy Naar ak Cuun Boutique ñoo toog ak dara te te noonu la demee kon loolu mu wax mbayit dëgg la mm-hmm. waaye Euh, mbay xam naa tamit aussi da ciy dugal affaire comédie rek mais ay kafam day ëpp. Mm-hmm. mais xëy na loolu muy wax sax Mara waxloo waxloo ko mm-hmm. parce que amaana bu dee bu desul. lu dul ko envoyé Serkey rek mu ne day dee Mara Niass bu gisee Faatoom tamit ah, mbay moo war a jug ci boppam <laughs> parce xam nga mbay. Mm-hmm. tamit tooñkat la day tooñ. Ah. mbay fii la dem benn soirée yaa may dégg soirée ba ba mu fa demee gis nga nan ko génnee ko génne ci bit ne ko bul filmer man ñooñu sax du dem seen soirée man may dem moom soirée titi laay dem mais ñooñu sax du dem seen soirée comprendre mais mbay ci boobu moo war a bàyyi tooñ ak jaxase parce que réew mi bëri na ñu fi mbay tooñ ak ñu fi jaxase mbay léegi da ngay xool mbay bi mu demee bi mu defee sogom boobu pourtant ñu bëri mënoon ko jàppale te jàppale wuñ ko. Hmm. ay ñoom Alburax ñoom Aziz Ndiaye gaa yooyu. Hmm. gaa yëpp dañ koo seetaan. Hmm. man dama jàppoon ne sax ci gaa yi la mais ndekete mbay ci wàllu